daanaka bu góor ak bu jigéen ñoo bokk affaire ñoo bokk nar-nar naafiq bambara ak bu bu pël ak bu naar ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk pas-pas naafiq sénégalais ak naafiq français ak naafiq bu kër Seexu Ture ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk pas-pas ñoo bokk nar-nar ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk fa ma leen jëbi noonu itam jullit ak tëngéej ak jullitab Dakar ak julliti Sénégal ak julliti kër Sékou Touré ak julliti France Badji ñoo ñoo d'accord rek waaye moom moom ba mu àggale ci naafeq yi nag la wax ni wal mu'minuuna way gëm ñu góor ñi wal mu'minaat way gëm ñu jigéen ñi. baadahum ñenn ñi awliyaa baadin ñu takkoog ñenn lañu ci nar-nar ak bëgg-bëgg ak soppante yaamuruuna dañuy digle bil maarufi foo leen fekk ci lu baax wa yanhawna ñuy tere anil munkari ci lu bon wa yuqimoona te ñu taxaw salaata julli juróom wa yootoona te ñu joxe sakaata asaka wa yutiiwuna te ñuy déggal laa yàlla wa rasulahu moo taxit ulaayka ñi sa yarhamuhumu xel seet na leen a yërëm laaw yàlla inna laa naka borom bi asiisun aji na daa ki mun julee aji dog doxal wa adda dencal na laaw yàlla mu'minina way gëm ñu góor ñu wal mu'minaat ak way gëm ñu jigéen ñi jannaatin ay tool tajri yoo xam dana daw min tahtihaa ci suufi garab ya lanhaaru ay rigool buñ ci duggee xaalidiina way sax la ñu fi ca place ba wa masaakin ak taax te yibatan yu leep yu laap te jannati addanin ci kër goo xam ne day sax du gent mukk wa ridwaanun te képp ginnaaw loolu am na yu gën yooyu ndax dinaa leen gërëm te wa ridwaanun gërëm mi na laay bi jóge ci yàlla akbar moo ëpp yi ma wax yëpp saalika du gaajana boo leen gërëmal yàlla alfawsu mooy texe azimu judi ñu màggal yàlla ñu ci yàlla boole barke ajjuma ji barke téere bi barke waxtu yaa ayyuha nabi yow Mustafa jaahidil kufaar xeexal ak yëfa yi ci jaas wal munaafiqiina naafiqi yi nga xeexal ñoom ci làmmiñ naa kenn sañu koo rey ndax dafa wax laa ilaaha illallaah waaye ngeen xeexal ñoom ci làmmiñ yéefar na xeexal ak ñoom ci jaas yi wax lus na nga xatal alihim ci naafiq yi ci seen biir la ñu ne waaye dee leen leen jànni bu ngeen di jéggi sax tey tam leen dëgg leen su ngeen di jàll talaale seen ndom yi wa maa waaw seen tapp waaye jaanama jaanama la wa bi sa nasir naafiq yaa ngoog yaali foona dinañu diñ billaay ci màgg yàlla ne maa xaaloo waxuñu li li nga dégg kat du noo ko wax te ñoo ko wax wala xam wax lu ñu kufri kalimatu kufri baat buy ci kéefër wa kafaroo weddi nañu baada islaamihim ginnaaw ba ñu nga xamee ne nañu ci diina waa moo ñu bi maa lam yanaa loolu lu ñu mënula am mukk te mooy toroxal rasool ak toroxal lislaam ak seytaanu yàlla bi wa maa naqaamoo ilaa an axnaahum allah wa rasuluhu min fadli wa maa naqaamoo weddi wuñu dara xiiw leen ci weddi ilaa ndax naaw moom dara nay a leen a laaw yàlla wa rasuluhu min fadli fa in ta fa in yatooboon ndéem tuub nañu naafiq bi yàqu dana nekk tuub bi xayran diggal law ñeen leen wa in yatawalla bu ñu continue ci naafiq jox lislaam ginnaaw yuasibum dañ leen buggal law yàlla asab mbugal mu di bu ñu mittal fitna ci àddina wala xita alaxa wa maa loom de di ngeen leen min a laaj ci fi àmbi ci suuf min waliyin aji méngoo wala nasirin du caagir aji wa min ma am na ci ñoom man koo xam ne aada deel na laa yàlla ne la in atee naa ndéem jox nañu min fadli ci aleel dana sadaqana danañu génne asaka wala na ko na dañuy nekk a faari na bokk ci ñuy i ñu baax ñi lu baax waaw jooju de moom xabaaram doy na dëgg yàlla aleel yàlla dina ko jox dina ko jox noonam waaye li ci ëpp nag noonam la koy jox wama ataahum ba nga xamee ni jox leen min fadli ci ngëneel la yàlla baxiloo ñu nay bihi ca génne asaka wa tawallaw ñu dum mooyu topp yàlla wowum te ñoom moodu doon ñu di way nuur waaw saxla ba talëp ku bari woon lislaam saaba yi daan nañu wér sax di jëw naan nabi daal dañ ko jagle yonent gi waaye daal dàqu la jaamu yàlla waa ji kooku sori woon na safara la mu jee dem lu ko fa yóbbu xaalis yàlla ci yàlla musal koo xam ne dem nga ba saaba yi di wax naan dëggalal na bee takk grand bi mooy yonent bi waaye dàqu la jaamu yàlla mukk waa ji ñu wax saxla ba te im na xaatib waaye mu defoon ku néewle benn bis Moustapha gis ki ñu julli tisbaar la mbaa takkusaan musal ma rek ne tël yàggul ci jàkk ji yonent bi daf ko dab wala daf ko oolu wala dafa xaar ba mu dellusi si mu ko gis naa la tey nga def ci jàkk ji jëfi naa féq ndax naa féq ñeme ñu toogaay yi jàkk bu dara sa dugg mooy mujjee dugg bu ne rompee mooy jëkk génn naa mooy jëkk génn suñ toogee toog a toog muy wat a ñaam di taxawaal di làqatu ba pexe jeex ba jeex bañ na duggaleen mooy mujjee dugg li ñuy def buy sotti rek mooy jëkk ne boxar ñet génn yonente bi ko gis naa la tey nga def jifi nafiq lu tax nga gaaw génn ni nga gaawee génn mu ne ko suma kër tout mel ni mbubb mee fa am mii su ma jullee sama farata jox sama jabar mu julli farataam jox wu mu julli farataam jox sama taaw mu julli farataam ma jox jabaram mu julli farataam may bañ balaa muxtaar mee jeex na tardeel leen moom a tax gaaw a dem ki am na ration na bi ne ko loolooy mën a am di ko jox ba naan mu dab mu dab na bi ne ko ñaanal ma ma am aleel yonent bi ne ko nang ma roy def ma royukaay ñaanal aw ma dara mu dem une semaine dogalewaat ko ne ko ñaanal ma ma am aleel bul xalaat su ma amee aleel dinaa def li ci war yonent ñaanal ko seen aleel ñoom jur lay doon giléem yu yokku nag yu yokku day yu yokku di yokk di yokku ba xëjatul ci biir màkk ndax sàmmwaay bu yaatu amu fi mu dal di mu dal di mu ak nag yi quelques kilomètres waaye bàyyi nag yi ak nanga gi tax na léegi julli suba rek la mën a fekk ak gée te benn waxtu daaw ko raw bëccëg koy fekk muy sànni tàkkusaan ngi fekk muy jox joxal si di nàndal léegi julli suba dong nga lay fekke ak gée nag yi yokk ba xëyatu fa bu mu avancé jàll caare la nekkoon léegi mu nga ginnaaw kees léegi par vendredi rek la ñuy vendredi ni suba la vendredi mu ñëw julli jumaa dem yëf yi yokku mu avancé Kaolack ngeen gi néew nu mu mujjee di taxaw ci route bi ku jóge Dakar mooy comment lu lislaam def yokku na fu mu toll léegi na gaa yi nekk piti di pat <laughs> suba ñëw la aaya asaka wàcc xus mi naa waalim sadaqa léegi lislaam laaj na di laaj jullit aleelam di ko tas ci ñi néew doole ba nabi jàngee aay mu ne Babacar yow yaay génn ren laaj asaka yi yaay jaab waaye sax la bata bu ko fàtte ndax dégg naa tubaar kàlla te am na lu mu dige woon mais ba mu demee laaj asaka daf ko ne nañ koy defee mu wax ko ko jàngee ngeen ko ñeent fukki xar mbaa béy benn béy fanweeri nag benn nag juróomi giléem ak xar juróom ñaari téeméer juróom juróomi dërëm mu calcule ko ber asaka ji mu bari lool ci bëtam mu ne ko di nga avancé ci kanam mu ne ko way dinaa dem weti Casamance mu ne ko demal bi dellu si fekk ma seet sama bopp dabaaba kat dellu si jaaraatu mu ne ko eh man daal seen diine ji dafa mel nag léegi da ngeen di laaj impôt kii daal ci laaj am polo dem bàyyi ko fa bi daal moo toog saaba yi ba mu yàgg mu jékki-jékki binni binni gu moom na bi daal ni eh, fab loxoom ci faari càmmañ gi daal daal leemu daal leemu ba daañu la xat xalaka allahu saxlabata wa maala yàlla alag na saxlabata aleelam fekk aay bi wàcc fekk doomi ndey ma ngi fi toog waa ji dal di rek daw uti ko taw rek na ko xamal xew waaye yàlla wàcc na ci aay musiba dal la laa mu doon jiital nag asaka ja indil ko nabi yonent bi ne ko yàlla ne bu ma ko laal mu dellu rasulullah génn àddina mu yëpp ko Ababacar Ababacar ne ko lu nabi laal du ma ko laal Seydina Omar falu mu di doom ñëw jooy Omar ne ko maa ngi laa dénk nit bañete laa jay balu na bii delloo la Ababacar delloo nga di ma ko yëpp boo ko fi ndete ma sa baat bi am mu dee dem safara moo di wa minhum man ahada allahu layn atina min fadlihi dana sadaqa wala nakuna min rek falamma ataahum ma min moo tax wërsëg bu ko nawee kenn ku ko am yàlla dina ko jox soppeem dina ko jox noonam waaye li ci ëpp nag noonam la koy jox dalee ci maam Adama ba teer ci Mouhamed ba ci alaaji Maalik gi mu bërki démb mii ba ci Abdou Aziz mii fi ne ku wattul boo demoon tey amul dépense tey gis nag ñi nga xam ne ñi ngeeg un milliard te sujjóot dafa guñ ko lay laay la laa waxaguñ ci benn yor ay étage boole ko ki facture yi dul jeex nga gis ne yàlla dina jox wërsëg xaritam dina ko jox noonam mais li ci ëpp noonam la koy jox ay